Saint-Valentin nit ñaa ngi koy waaj waaj gu doy waa sax euh, bañ wax ni ñaar ñu bëgg bëggante dañ ko war a feetu suba mu di bisub 14 février euh, ban gis nga ci am. waaw gis ma ci am mooy ñun sunu pénc lépp lu xew. nañ ciy duggi du bokk teg sax ña ko xewal nañ ciy dugge ndax suñu pecc saaboo boo ne saa boo bëgg rek ñu dégge ca nopp soo ko deseewul sax da nga dégg ko ne bëgg naa la daal ne te yàlla tax c'est-à-dire nu bu ma la bëgg wax <laughs> bëgg naa la waaw moor xuja bëgg naa la te yàlla tax baata te yàlla tax boobu xam nga lu muy tekki mooy nu la donc bëgg ak yooyu du mbirum nopp ku ci xamoon bëgg dootoo bëgg sax far nit bëgg dëgg sunu borom lañ ko wax wala ñu war a def tabaaraka wa taala ba nga xam ne foo toog mu ni sa bi ni sa xel bi ni sa xalaat yi su boobaa dootoo bëgg sax dootoo ti doom ndax sunu borom nee na bu seen doom yi doxante doxee sama diggante man dox leen nu dem bu seen alal ji doxee sama diggante man dox leen nu dem. kon ku toll foofu ci niveau doo nekk ci yii nga xam ne ñu naan kii bëgg na kii kii bëgg na kii kenn ku nekk def compo di dem di jënd ay gâteau di ku nekk di jox sa morom yooyu du jëg penc mi ñun li ñu jëg mooy nan bëgg ku ñuy bëgg subhaanahu wa taala buñ ko buñ ci ñookee ku ñu bëgg ñu bëgg rasulullahi alayhi salatu wasalaam da ngay dégg mam suñu tubaab di wax ci uqal bu kaaw ci uqal bu kaaw euh, ulaayika al qawmu laa yasqa jalisuhum is yuksiboona yaksiboona al muridina saadaati daa dina tuubaa li abdin muridin saadiqin lahum bi xidmatin daf caa teg baatu aw bi xubbin loolooy bëgg ñan la bëgg ñooñu la ñuy bëgg waaye nekk fi yu yu yu yu taw yi nga xam ne tabarkàlla yooyu amul solo dara li am solo daal mooy bëgg bëgg moom yàlla lañ koy def xol nag xol sa bos ak sa bosu technicien bi ak sama bos moo suñ néeg yi ci Dakar ñoo yem gis booy wut néeg foo luyee da ngay ñëw ne boroom kër gi. néeg bu libre laa soxla néeg bu libre bu kenn dëkkut boobu laa soxla mën na la néeg bee libre da nga nga waxaale daa dem dugal say bagage dugg gis nga sa xol bii bosu mooy néeg bi yàlla bëgg dugg si day ñëw ne la ndax sa bi libre na nga ne am na ko ci nekk mu dem ci beneen xol allahu akbar ki am na ko ci nekk mu dem ci beneen xol bu ñëw ci xol boo xam ne fekk ko fa jabar fekk fa doom fekk fa nga bëgg xaalis fekk fa ko bëgg daraja fekk fa ko bëgg titre fekk fa ko bëgg ko bëgg ku bëgg dara ne ko fa illaa man atala bi xal salim xol booba ci la yàlla ca moom la yàlla jël xol boobu lay luyee luñ ko luñ ko ko luñ koy ko joxe avance bu ñu ko laaj sunu borom dana ko jox te te ca lay dëkk boobu xol nag bu sunu borom dëkkee cër yeeg làmmiñ weeg loxo yëg li yépp ay ànd xam ne borom borom néeg bi ñëw na jërëjëf ci sa laaj bu am solo laaj la la bu réeréeréer réer waaye ñun ni ñu koy tuutalee ni jàpp ko ay Saint-Valentin nangam ak nangam loolu dafa tuuti ci bëgg ngeen baal ma ci toom bi may waxee nag parce que je suis un peu euh, gis na ni jullit sax ñoo ëpp ci li koy li koy feete yow lan ngay wax ñu mbokk jullit yooyu nga xam ni ñooy def loolu. alhamdulilah mooy sunu bo yonent bi daf noo waxoon ne bàyyi leen bàyyi leen toppandoo am ngeen loo xam ne bu leeroon ñëpp toppandoo leen. fexe leen ba loolu leer te ngeen bàyyi toppandoo yi la sa tamit nu sunu nag man qablakum shibran bi sabrin hatta law daxalu juhra dabbin daxaltumuhu nee na bàyyi leen ñi ngeen di topp ba buñ duggee ci mbaxu mët sax ngeen dugg fekk leen ca te ngeen yor lu kër foofu li ñu ñi yor loolu la yonent bi wax kon nag muy man muy keneen muy keneen nan bàyyi xel ci loolu ñu bàyyi ne ñun waruñu topp kenn dana war di topp jërëjëf ci sa laaj yu am solo yi ku dégg oustaz Alioune Sall euh, da nga koy dégg muy delloo ñi ci yàlla waaye itam Euh, nga nekk conseil économique social et environnemental tey mënuñu tudd mënuñu la tudd te suñu xel dem ci politique mu di euh, statut de Dakar ñu ngi Aminata Mbengue Ndiaye dafa def benn proposition mu di ñu fexe ba di euh, li nga xam ni moo di maire de Dakar ñu koy nommé yow loolu loo ci xalaat. waaw man de li ma ci xalaat mooy politiciens yi loolu du leen arrangé xeet bi tam loolu du leen arrangé ñun li nu arrangé mooy ñun doon doxale nu doxale ko. am na ñoo xam ne na leen peuple bi fal am na ñoo xam ne leen waa dakaar fal waaye bu nu ko bàyyee président muy tànn wala ñu bàyyi ko njiitum réew muy tànn yooyu daañu dem ba mu yàgg ñu ne ah lu nii démocratie daa am na muy doxee lii mën na la gënal mais gënalul xeet wi ku jiitew xeet danga leen di bàyyi xel wa bay na baynahum waaye soo xëyee xëy rek daal ni léegi na président di fal ki nga xam ne mooy nekk maire de dakaar loolu politiciens xaw ma luy joxañ baag fu mu jëm. waaye li gënoon mooy nu bàyyi leen ndox la rek moo gën a teey ci penc bi mooy gën a stable mooy gën a dal te ñun suñu réew mi dal la soxla ak ko tekk te loolu mën na koo jur ku nekk loo am jël ku am sa teg fi ki am candidat teg fi waaye am jël te kenn ku nekk loo amatee ñu yéene la ko te dox ci sa ginnaaw fas yéene nga am ndax yàlla mooy fal mooy falli nit mën naa bëgg a falu sax far du ko fekk benn muy wéradi wala mu génn àdduna ndax ci biir programme yàlla ñu dox jërëjëf ci sa laaj bi xalifa euh, Sall moo fi nekkoon meeru Ndakaaru euh, ci temps Abdoulaye Wade te muus ñoo dégg ñuy nommé loolu bi xa euh, Macky Sall ñëwee gis nañ ni dañu dikk rek bëgg galfaañ mbir mi ndax ñàkkoon ni jàppoon ni ñàkk nga xam ni moom la pouvoir bi di ñàkk Ndakaaru moo tax ñu bëgg a def noonu. waaw politique moom ay analyse la rek da ngay analyser mooy analyser suñu technicien bi di analyser waaw kenn ku ne ni gisee rek période bële lii moo xewoon période bi lii moo xew kon ah, bi lii moo xew moom daal li xeer bi wax daal xeer bi ñoom ñoo ànd ne leenu gënal. léegi nag référendum yeeg euh, wate yeeg élection yi yëpp mooy war na ñoo ngi ci démocratie suñ ko fi jëlee rek démocratie daa tàmbalee yàqu te bu démocratie yàqu ci penc mi du baax munu jik jërëjëf jamono yi am xew-xew ba am ci àdduna wërngal képp mu di ca Chine am coronavirus bu fa xew ba yenn ci doomu Sénégal nekk fa euh, tey jii ñoom ñu doon ñaan ci euh, nguur Sénégal mu jël si leen waaye day mel ni matuwaay yi amu fi loolu loolu en tant que conseil économique sociale et environnementale ban gis-gis nga ci am. jërëjëf bu fekkee question bi mooy ñàkk jëli gi day xam naa jëli gi mooy dal xelu ñiy parents yeeg mbokk yeeg waa réew mi ñàkk gee jëli xëy na peut-être mën naa gën a dal xel ci geneen àll gi problème bi kay mooy bu fekkee jumtukaay yi amu fi na wax wuutu jumtukaay yi. wax ji mooy danañ leen jëli wala daañu leen jéem a jëli wax jooju mën naa am eh, bu ñu ko waxee noonu mën naa am dënn yi du jóg te itam duñ ci jàq ndax sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon ci noonu de daf ne woon bu ngeen déggee ab feebar ci barab bu leen fa fekkee bu leen génn bu leen fa fekkut bu leen fa dugg moom loolu la jàngale woon bu ab feebar nekkee ci barab fekk leen fa wala bu ab feebar nekkee ci barab bu leen fekkee ca barab ba bu leen génn muy benn bu leen fa fekkut bu leen fa dem moom loolu la jàngale woon donc kon étudiant yaa nga siin nañ leen jëlee bu ñu leen jëli bu jëntukaay yi amee te ñu xam ne jëli gi mooy dal seen xel dañ leen di jëli bu ñu leen jëliwut it ñu wax kàddu yoo xam ne la alxuraan waxoon ne qawlun maarufun xayrun min sadaqa yatbau aza suñu borom ne na waxi njëkk moo gënal sarax boo xam ne ginnaaw sarax ba aw xastee cay tege jërëjëf ci laaj ba am solo bi lan ngay wax euh, wayjuru ndongo yi nga xam ni seen xol xawoon naa jóg gannaaw bi ñu jiital réew mi waxee waaw mooy li ma wax sànq rek li ma leen di wax rek mooy daal ñàkk gee ñëw mën naa am mu gën gën ñëw gi nag peut-être ñun moo ñuy gënal waaye dara mën naa ñàkk gën ñàkk noo gënal ba noppi gën loolu moom noonu la àddunay doxee léegi nag parents yi kon li leen wax rek mooy ñu dal rek ñu ñëpp nu ànd dékk suñu borom suñu loxo di ñaan pour mu aaral nu sunu étudiants yi nekk foofa aar ñu sax ñun ñu nekk fii nag ndax yëf yi du ñee dañoo nekk fii wala ñu nekk fii suñu borom daa moom asamaan moom suuf am ay soldats yu kenn xamut ci mu koy tooñ mu ne te salfaañe mën naa jël benn soldat ci soldat soosey yebal la ci ñoom soldat bi doo ko gis mooy virus bi nga xam ne moo feeñ. fële tey ci siin bu neexee suñu borom mu beneen feeñ feneen ndax Ebola feeñoon na fi beneen feeñoon na fi yeneen a ngi fi kon loolu yàlla mooy wane loolu kon nag ñax gi ñëw mën naa am sax mu gën ci ñoom wallahu taala alam wa shukran jërëjëf oustaz lan ngay tàggatoowee li may tàggatoo mooy ñaanal leen euh, Sénégal set nit ñi di topp yi ngeen di def te itam sponsor yi ñëw sponsorisé ko ba ngeen mën a am lu ngeen di euh, tuxoo dem barab sàngam ak fu ngeen bëgg taataan dara taataan ko fa yàlla may leen xel yu leer naññ xol bu leer boo xam ne da ngeen mën di poser question yi ngeen bëgg te leen di dajaleeg ñoo xam ne ñoo ma gën a leeri xalaat gën maa rafet yi xalaat ndax yi fi gën a yaatu yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko def yàlla na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci def ci sunuy poos dara in uridu ilal islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu